ay barabu yu mécanicien nag di lu ñu mën a seetlu ci fu bare ci dëkk bi loolile di tegtale solo soos boobu la liggéey am na ko ci koom-koom bi bu weesoo nag jafe-jafe yi aju ci liggéey bi ñoom ñiy yëngu ci wàll wi nag di jànkonteek yeneen i jafe-jafe lu ci demee ni ay barab yu ñu mën a amalee seenub liggéey. ñun amuñu ay ay ay pàkk yoo xamante ne dañu ko jox uniquement pour ñu di fa liggéey waaye ñun ñooy démerdeel suñu bopp fu ñuy nekk. fi ñu nekk nag ñaari xeet la yenn saa yi ci mbedd lay doon am ñu ñu nekk fa wala soit ñu luyee pàkkub jàmbur saa bu ko borom soxlaa da ngay defaat déplacement te yéen gis ngeen situation bi ni mu demee fii ci garage bi mooy matériel bi bëri na bagage yi oto yeeg affaire yooyu boo bëggoon di ko déplacer di dina la coûter un mois wala deux mois ngay ngay ngay roñu demaat feneen quoi. ngir jàkkaarloo ak xarala yi aju ci woto yees yi. ñoom mécanicien yooyu le nag di doyloo xam-xam bopp làmboo nañu ko buy tax ñu mën a jàkkaarloog lu ni mel. xam nañ ne oto yi fi mu ne nii dafa sophistiqué affaire électronique moo ëpp ci oto yi waaye xereñu gars yi romb na sax dépassé na sax capacité machine yi. maa mën nañoo dépanner oto sans compter ñu koy diagnostic ak yooyu. parce que machine yi en général dañuy jël regroupé ci benn marque boo ëllëgatee ñu dugalaat beneen. bu ñu sukkandikoo ci moom mi di yëngu ci wàll wi. jumtukaay yu xarala nag yu xareñ rek mooy lii la mën a musal ci ak làmbatu soxal jafe-jafe yi nekk ci yooyu le woto. oto yi léegi liggéey bi ak bu njëkk defam am différence ndax oto yi bu ñëwee bala ngay def dara ci lu baree baree bari li ngay njëkk a def mooy def sa diagnostic foog nga rof machine xool diagnostic oto bi lan mooy problème soo ko xoolee ba pare ba nga xam ni lii mooy defu oto bi ca ngay soog a mën a dugg xam machine yi yore dafa am ay xeeti machine machine bu nekk ak li nga capable ak machine bu nekk ak li ngay def moo ci sonal moo tax machine doo yor benn da nga yor ay machine yu bëri da nga yore tamit machine yoo xam di dénk ay naataangoom ak gën a xóotal ñeel gëstu bi ngir gën a mën a dëgëral seen taxawaay. lépp li am da nga koy xam am na oto yoo xam ne sax ñu ngi koy liggéey ñëwagul da ngay commencé am seen information. naa la oto bii bi ñu liggéeyu nañ ko nangam mais léegi nangam ak nangam ak nangam lañ ci def. dafa am changement ci nangam ak nangam nga xam da koy xam ama muy egsi sinon bu ñëwee denc yi sax bokkul apare yi fi ne boo jëmee bëgg a dindi dara dafa am fooy nekk ci oto bi suñ ko dencee fële ci capot bi beneen bi dañ koy denc roon coussin bi arrière bi benn bi ñu def ko ca maal la soo ñëwee bëgg koo xam sax te xamoo fu nga ko def sax foofu la problème bi njëkk nekk foog nga gëstu. yooyu yooyule barabu liggéeyukaay nag léeg-léeg di daloo ay lekkool yuy jàngale lu ni mel te sabab bi du lenn lu dul ngir gën a mën a jëmmal ak dëgëral xam-xam yi nga xam ne ñi ngi koy jàngale foofa. maa ngi élèves yoo xam ne dañ fay ñu dem defal formation pratique te jàng na ñi ngi seeni diplôme ba léegi sax mais ñooñu dañu bëgg pratique li ñuy jàng lépp théorie la duñ ko gis fi ne dañuy ñëw fii léeg-léeg fi kenn yendu nga wan leen ni leen lii mi ngi nii ñu xam ne lii fii la alternateur nekk fii la calculatrice nekk fii la BSIM nekk BSEM fii la nekk. waaw lu ci nekk nga xam dañoo xam ne lii lii lay jar bu ci paree nag ci loolu doo ci am nga leen mën a bar rôle lii la calculatrice bi lii mooy rôle su fekkee ne nag ñi ngi sàmmonteeg li nga xam ne war loolu nañ ko ak seeni client ñoom mécanicien yooyu leen nag di jànkonte léeg-léeg ak ay yéex-yéex yu soxal commande yi nga xam ne dinañ ko def léeg ci lenn ci ay piyes yi ñu soxla loolu le nag di sabab ay yéex-yéex ci woto yi nga xam ne warees na ko jëbale